moi personnellement par rapport à ces universitaires man je les prends comme des intellectuels mm -hmm. mais je trouve que ñoom vraiment ils sont d'une malhonnêteté intellectuelle bi nga xam ne qui me man qui me dépasse comment ça parce que mënu ma comprendre wax nañ ko léegi ce qui s'est passé à l'université Cheikh Anta Diop est historique mhm. musta am si réew est-ce que tu as une fois entendu ces gens-là sortir dénoncer ce qui s'est passé non mais Mamadou Awa Ndiaye naka la ñu mën a toogee si benn Sénégal nga ne ma universitaire nga li ni mel am musoo toog dénoncer ko xam nga di plutôt que ces gens là ñoom seen bopp ils veulent euh, porter le manteau intellectuel pour défendre une cause. ils sont pas n'importe qui xam nga cause boobu le professeur mais xam nga laa bëgg xam nga laa bëgg nga wax ma mm-hmm. ñooñu je l'ai vraiment euh, ils auraient pu à l'époque ba nga xam ne Pastef existait prendre une carte de membre ou d'adhésion au Pastef. Ah. parce que quand même nag xam nga lan la c'est des. Euh, c'est des c'est des opposants encagoulés et le président Macky Sall n'a pas de leçon à euh, jël. ci mhm. ci ñooñ tey président foog naa du ñooñ ñoo koy. jox euh, du ñooñ ñoo koy. parce que aussi li ñu ko yéene mooy sorti bu rafet bu honorable. Euh, euh, Mamadou Awa tey nag toll nañu réew bi nga xam ne nag président Macky Sall nag waayam dafay rafet. oui xam nga nag waaw ok non amul pour l' amul pour l' parce que en politique tout question de contexte. Mm-hmm. et ce phénomène ou autre ñoom ñëpp à chaque fois suñuy génn soo seetloo ils sortent pour défendre l'homme Ousmane Sonko ils ne sont jamais sortis pour pour parler de du pétrole du gaz de l'émergence mais mënoo ma wax nga ne ma ay intellectuels chaque fois lu intellectuel xam nga leen di xaar xam nga laa la laa lan laa bëgg wax tey pour ñu per ñu mm-hmm. ñu ñu ñu ma pour ma pour ma tëj gis nga une analyse euh, scientifique doit toujours être ou ou intellectuelle mm-hmm. doit toujours être basée pour mun naa wax sur la neutralité. il mhm. faut toujours être pour nga ni intello nga wala nga ni benn euh, universitaire ñoom seen rôle ñuy jouer ils doivent être neutres et ne sont pas dans la neutralité dañu far. te soo demee ba far bàyyil sa casquette bi ngay mbubboo affaire intellectuelle nga ni tu es politique il défend Sonko nañ ko wax mais maintenant cette personne dont il défend ba nga xam ne mi ngi woote à l'insurrection ba nga xam ne mi ngi mi ngi woote pour ñu dépasser notre président Macky Sall l'a fait euh, à mhm. nga xam ne moom mi ngi woote pour qu'on sabote nos distributions d'eau nos distributions d'électricité ñu yàq sunu sunu réseau yi mais ñoom fan lañ nekkoon. Mhm. mais ñoom xanaa kon ñoom Sénégal ñoru leen. ils sont là pour défendre ah, un homme. mais ils ne sont pas là pour défendre les causes wala enfin euh, le Sénégal donc le président Macky Sall n'a pas de leçon à recevoir de ces personnes. Ah,